What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Summer guy. <laughs> yeah, before going fast, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. <laughs> They call me Sheikh Moyinga, Pendafal, Ibrahim Ndao, Pap J, Mustafa Man, Dagul from Belgium. They call me Amadou Damjan, Jabaram, Kumaman, they call me, uh, they call me Modou Fall, Boynan Tekal. But some guy tell me, j'ai vu une sortie. bu Gris doo def comme quoi que Gaston da ko doon jox xaalis pour làmb jeg yooyu après ñoom ay pechin après euh, kii génn quoi euh, Gris Bordeaux kii Gaston génn tamit moom du ay classe ñu ko xam moom ay téesante la ko neex tu vois bon li ma si jàngat quoi man jàngat bi may wax quoi mooy c'est soo suivre processus euh, processus kii bi événement yi quoi day am loo xam ne day ñëw rek pour éclaircir nga a euh, jox la avance ku joxoon avance ñaari avance ëmb seen ëmb seen bëriwul na ko noo garaawul toogal heure boo amee bëreel ma kooku léegi moo dem ba problème mu joxe cinq millions avance dix millions <laughs>

il est tellement fauché que moo tax tey jii muy topp ay Macky Sall naan kan defal troisième mandat defal mandat te loolu ñàkk ngor la quoi loolu ñàkk ngor la yow lu ma am na ni Sénégal bu fi nekkee ba léegi mosuñoo téye cent millions ñu moom mosuñoo aye yow aye nga ba fégal léegi nga ne keneen du aye quoi ngay këpp cere suuf si mayal ay troisième mandat mais maintenant je te comprends quoi parce que mënoo fay sa 10 millions kii nii ay jox naa ko 5 millions janvier toogaat bu ut joxe ko 5 millions <laughs> yaa bàyyi làmb la làmb moo la bàyyi non Gaston nag da nga làmb moo la bàyyi nag loolu je te jure làmb <laughs> moo la bàyyi père Gaston tu vois ah tu as beaucoup fait pour le pour la lune nag tu vois ba muy neex yaa bokkoon ba muy neex sa kanam si nekkoon bu ne sacrifie pas le peuple sénégalais tu sais que Macky Sall doit partir les gens on en ont assez fii dañuy dañu weesu ay maanaam mandat nga toog fii mel ni ay Mobutu wala nga mel ni ay Bongo ñun ñoo dépassé loolu tu fais tes deux mandats de cinq ans et tu tu tu pars nekkal jine nekkal dëmm del naaw del kii nii tu pars demal sa yoon. C'est une civil civilisation, civilisation c'est démocratie loolu émergence mais mais mais émergence passé bâtiment tu construis tes bâtiments, tu construis tes bâtiment tu émerges des bâtiments avec des pierres mais mentalement tu n'émerges pas c'est quoi ça C'est mooy émergence fait des stade olympique arena voilà voici les immeubles les immeubles qui poussent le Dakar est un pays émergent et pendant ce temps celui qui dirige Dakar il aspire à avoir un troisième mandat tout en sachant que ça brûle en Côte d'Ivoire à cause du troisième mandat, tout en sachant que ça brûle au Mali à cause du troisième mandat. Et ce gars-là, il est là en train de, de, de, de, préparer la plume pour faire ça avaler, euh, cela euh, aux populations sénégalaises. Avec la complicité des, promoteurs fauchés, avec la complicité des, journalistes corrompus, avec la complicité des, politiciens sans vergogne pour, pour lui faciliter cette tâche avec la possibilité de cette main blanche qui est derrière pour défendre ses, ses économies. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas dans ce pays. Ça ne va pas passer. Ça, que vous, le, vous, que vous mettez ça dans, dans, dans un coin au, de, au, niveau de, dans, dans, votre tête, là au niveau de votre tête. Je parle la langue française comme je veux. Nous, on s'en fiche. C'est une France c'est libre. dañuy libre par force teg fi Sonko fer loolu moom kenn du ko Il muy yow Gaston mënoo ci dara muy keneen ak keneen mënoo ci dara. du question da ngeen di fauché rek ñëw cogg Macky Sall wala Aliou Sall pour yéen ngeen nekk 15 millions 999 mille Sénégalais du souffrir yéen yéen ñan yéen yéen a baadoo la daan yor ay budget 1 milliard jox ay mbër ku nekk 15 millions mais boobu dafa neexoon mosoo toog naan ay kii ak lii ak lii mais mu naqari rek nga bëgg ñëw cogg Macky Sall sa pour ayawaat quoi léegi ñun ñun xam ne mosu ñoo ay rek ñun ñun affaire yi deen xool rek waa jaxumba jaxumba yeeg wad wad yi ngay ngay ni foo leen def yéen la ëppale fii si suuf xam nga kat booy ñàkk di toog ñu marché man man bala ñu may ligote sax damay dee di wax boo ma daggee sama làmmiñ du ma wax sax ma dagg sama deret di bind ci miir suma su sax damay ko ne di leen ànd ngeen may gént may wax ak yéen dëgg da ngay moom nit ñi yéen la moom nit ñi yéen Sénégal di ngeen koy bëgg a téye di ko on verra Sonko bàyyi force Sonko by force égalité njub fay fisc combat ay 200 millions 1 milliard fay fisc par force fa ngeen fay impôt libanais par force on n'a pas besoin de dirigeants corrompus de dirigeants bandits il faut libérer ce peuple on n'a pas un imam diko pour le faire imam pas le courage de l'imam diko mais on va essayer de sensibiliser les Sénégalais pour que l'image de de de l'imam du apparaisse apparaisse dans ce de nous loolu la ñuy def ñun ñooy suñuy imam du ko par force ñun jeunesse sénégalaise te je suis venu en guerre ñu laay waxee soo sama tenue militaire mu nekkoon militaire ngeen xam nga xam ndax jot ma la littoral dina ma dina ma tax a noppi